yàlla du bind doomi aadama bu dul doomi aadama yàlla du bind lu dul doomi aadama mm-hmm. te xam googu nga xamante ne moo tax ñu bind doomi aadama mm-hmm. ki war a xam mooy sëriñ kon sëriñ nu fee dëñ mm-hmm. ki la war a xamal mooy sëriñ ki war a xam war a xam ne mooy sëriñ sëriñ boobu mu ko jëlee ci kan ci yonent sallallahu alayhi wa sallam cent vingt quatre mille yonent xam rek moom lañ leen fi indee xam rek moom lañ leen fi moo tax bu coow li amee Sénégal ñëpp naan waaw waaw sëriñ waratula am ak nangam dara am dañuy laajaat lan la ñuy doyee sëriñ kan mooy sëriñ lan la ñuy doyee tariq ak lan mooy tariq su paree sénégalais yi doogu juge benn sénégalais yi sëriñ sëriñ mooy ku pare ci boppam bakkanam wala pare jàmm dégg nga waaw stage bi mu lay defal stage école bi mu lay formé moy école tariqa tariqa moy lan sayrul mukhaffafa min as-salikin ila allah tabaarak wa taala ma al-manazil wa taraqi fi al-maqamat bi mujahadati an-nafs wa kathrati al-azkar wa nawafil al lxayrat ba pare mu dëgërale ko ko من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أو إلى يوم الدين. بنن بمنى وأنا لا استقاموا ala tariqi la naa maa'an yumtaruun wala tegoo ci yoon wa ñu teg ñu ñu nandal leen eau de source mm-hmm. saraban tahuran maa an gadaqan loolu yëpp mooy ndoxu marifatu billah mm-hmm. kon sëriñ liñ koy doyee mooy xam yàlla mm-hmm. boo joxee sa bopp koo xamante ne nag amut looy xool ci moom lu la rawee foo jëm yow sàngara nga bëgg a tàqaloon sëriñ bi taxaw ne day naan sàngara loo koy doyee subhanallah yow bon nga bëgg a bàyyi yàmbaa sëriñ bi taxaw ne ci la dëkk te xam nga loo koy doy yow da nga bëgg a takkook sa borom sëriñ bi du julli parce que inna salaata sillatun bayna hmm. abdi wa rabbi hmm. julli mooy liaison entre jàmbi ak borom bi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp bàyyi julli daanil na diine léegi nag ki nga topp ne da ngaa bëgg connexion sa diggante ak sa borom moom julli la ne du julli hmm. loo fay def clair moo tax bés bu nekk nag munoo mën a am résultat ci li ngay ut li ngay ut da koy ut fi mu ne mhm. sëriñ yàlla lañ koy toppee sëriñ mu muril la say lacune dégg nga tekkil la jéng yi mhm. tontul la question yi nga xamante ne ba conscient wee sa bopp ba ngay génn àdduna question yaa ngi yow mhm. moo tax ndaw ñi tey li ma leen di wax rek problème bi am mooy képp beaucoup de questions sans réponse loolu moo indi lacune yi ndaw ñi am moo indi xat-xat gi nekk ci ñoom parce que xat-xat stress parce que question yu bëri te amoo ci réponse mooy indi stress loolu mooy indi xat-xat moom moo indi dégg nga euh, sànni giñ sànni seen bopp ci géej gi ak sànni giñ sànni seen bopp ci àll bi ak sànni giñ seen sànni seen bopp ci ay loxo yu ñoo xamante ne dégg nga ay faiseurs de malin lañ neexum xel rek la ñuy jaay nit moo tax nag doomi aadama al insaanu yuridu nafsa nit ki dafa soxla boppam nit dafa soxla boppam wax naa leen léegi ne léegi nga xëy di ngay xëy di liggéey sax soxla sa bopp tax nga xëy tool ba ngay bay soxla sa bopp la lal bi ngay jënd di ko tëdd lu lal bi rafet rafet soxla jot sa bopp ci lal bee ndax ngay jokkook lal ah mhm. lekk gi ngay lekk jot sa bopp a tax nga añi ji baa nga réeri ji jot sa bopp mhm. école bi ngay dem di jàngi wala ñu yóbbu la fa nga jàngi pour nga jot sa bopp la moo tax nga jokkook école mhm. dégg kon sëriñ bi ngay jox sa bopp pour jot sa bopp la kon nit ki bu fekkee ne day jox boppam koo xamante ne fa lay ñàkkee boppam amul njëriñ ñun de amul ci Cheikh Ibrahim déedéet Cheikh Ibrahim Niass mën naa wax ne bokk na ci sëriñ si nga xamante ne li tax ñu mën li ñu def ak jëriñ nit ñi mooy dañoo désintéressé wu ci ki mu doon ak lu mu am allah moo tax mu ne wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadrati lbarri rahimi ilahi Cheikh Ibrahima Niass mu ne alam bi univers bi leer peuple bi nit ñi dawloo jëm ci man maanaam engouement bi am vers xam nga moi man lan moo ma ci ñor mooy an asuqahum ila hadrati lbarri rahimi ilahina ma maa ngi leen rek yóbbu leen ci pay yàlla bi nga xamante ne mooy al albarru arrahim mhm. te barru rahim moo lay delloo soxla moo nit ñaa ngi wax liberté lañ soxla doomi aadama ni yow mënu laa jox liberté parce que moom déjà dafa soxla liberté ki jotul boppam mënu laa jox sa bopp mhm. te fi mu ne sëriñ si Sénégal ñi ci jotul seen bopp dañoo bëri bés mu nekk mhm. nit ñaa ngi leen di jox seen bopp pour ñu jot seen bopp te ñoom dañoo jotul seen bopp certes moo tax nit ñi question bi foofu la moo tax ma leen di wax ne fi ñuy jaaree doomu aadama ba mu doon produit fini xam yàlla da cee bokk. leer te sëriñ boo xamante ne xamut yàlla. nan la lay mën a xamalee yàlla. impossible te xam yàlla lu muy rëy rëy rëy li mu ci soxla mooy jot sa bopp. Mm. moo tax Cheikh Ibrahima dafa bokk ci sëriñ yoo xamante ne dañoo désintéressé wu. ci nit ki ki mu doon ak lan la am. désintéressé wu boobu mu désintéressé wu ci ñi mu àndal. ci lu ñu doon ak lu ñu am moo tax bàyyi ñu am efficacité pour mën a combler seeni i vide. Seexu Tijaan. parce que ba tu yërmande lay xool ci ñoom. amuñu mënuñu ndeysaan. Oh. nga gis ne ku amul mënul boo nekk ak moom loo mën lu dul mën loo ko jox ko. Oh. kese moo tax yërmande gi dox diggante taalibe ak sëriñ dañ ko ñàkk tey parce que diggante taalibe ak sëriñ compte affection moo fa war a am. Hmm. diggante nit ak nit. wala wala doomi aadama ak doomu aadama. mën naa ne sa compte bancaire mën na leen a boole mm-hmm. waaye dañuy tàqale ko mm-hmm. waaye doom diggante sëriñ ak taalibe compte affection moo ci nekk ndax wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin lil alamin yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na dama laa yónni teg ko ci kaw de mu daj ci àdduna bi moo tax compte affection moom la yonent bi amoon ak jaamu oh. yàlla yi moo tax bi mu deewee dégg rob yonent yàlla muhammad ci eh. xolu jaamu yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam ndax contre affection la amee woon nit moo tax boo nee Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci lu ñaaw nga yëngal xol yëpp parce que fa lañ ko oh! rob Cheikh Tidiane ma hmm. ci Cheikh Ibrahima Niass contre affection la am ak doomi aadama yi boo nee Baye Niass ñëpp ne Niass hmm. di xaar loo wax ci moom lu baax dégg nga hmm. seen xol yi nga dalal leen nga wax ci ñoom lu bon jox seen xol yi ndax contre affection la alaaj Ibrahima Niass séq ku mën a doon ma leen di wax ne sëriñ ak taalibe maa ngi koy répété compte affection lañ séq mais du conte bancaire. Hmm. man du man ngay xaar pour ma feesal la sa banque yi waaye dama lay xaar pour nga feesal ma sama compte. allahu akbar du yow man ngay xaar pour lan ma may la loo bëgg ndax sëriñ bi naa ànd ak moom pour am kër am oto am visa tukki non non sëriñ bi taalibe bi dafa war a xaar sëriñ bi pour doon dara ndax il faut faire beaucoup de choses. pour avoir quelque chose déedéet il faut faire beaucoup de choses pour être quelqu'un quelqu'un Motax yalla dafa téré ñu dundee diiné. Motax tax sëriñ siy dundee diine yëpp fii la ñu mujjee tëj seen taalibe yi torturer leen rey leen fa ñu mhm. parce que matériel la rek dañ koy use kese bu fekkoon ne compte affection am na seen ak moom sëriñ bi day toog ci naaj bi ndax taalibe yi dem ci kër gi sëriñ bi dafay ñàkk ndax taalibe yi am sëriñ bi dafay sonn mm. ndax taalibe yi am oh. jàmm mm. ndax lan liee liee mooy lan compte affection mm. moo tax compte affection boobu nga xamante ne sëriñu Sénégal yi dañ ko manqué seen digganteeg taalibe yi moo tax waxtu wu jot rek seen taalibe yi ñu ngi leen di yërëm waaye nag maa ngi wax ne nit ñi nañ delluwaat ginnaaw nit ñi nañ delluwaat ginnaaw ne euh, sëriñ amatul sëriñ a ngi am ba tey te billaahi Cheikh Ibrahima ña sëriñ leer nañ waaw loolu moom gëm naa leer dañ naan guide mu ngi am ba léegi man gëm naa ne El Hadj Ibrahima Niass moom guide religieux. waaw moo tax nag loolu laa doon wax ne boo xoolee ni Sénégal mel tey euh, euh, ndaw ñëpp daw jëm ci esp euh, mi làmb gi bu amee mu fees dell concert bu amee mu fees dell. Mm-hmm. dégg nga corona bi bi mu nit ñaa ngi rey seen bopp xam nga lu tax dañ mënut dellu seen bopp. Mm-hmm. dañ mënut seen bopp. nit ki nag mën na laa jàngal ba nga am cohabitation nit ñi. waaye war na laa góorgóorlu tabax la ba nga mën a dëkk ak sa bopp am na ñu ne mën nañoo dëkk ak nit ñi jubóog ñoom mais mënuñoo dëkk ak seen bopp seen bopp ñu wéete mm-hmm. moo tax am na ndaw ñu bëri ñoo xamante ne mënuñoo mën nañoo dëkk ak koñ bi dëkk ak quartier bi ci jàmm waaye mënuñoo dëkk ak seen bopp ci jàmm mm-hmm. comprendre li ma ak leer nit ki balaa ñu laa jàngal nga dëkk ak nit ñi dañ laa war a jàngal nga nga mën a dëkk sa bopp mm-hmm. dëkk ak sa bopp ci boppam moom tey la ñu Alaaji Ibrahima Niass di defal moo tax waxtu wu jot ma leen di wax ne

ndax ñu mën a sereelu tuuti mhm. mën a mën a mën a yenneeku yen bi nga xamante ne seytaane en dama bëgg nag ñu affronter mbir mi jeunesse bi affronter mbir mi jàkkaarloo kon euh, te tubaab yi ñu yaakaar tamit dama leen di invité ci Cheikh Ibrahima Niass du philosophie du jànkatu tubaab bi bàyyi la lu bàyyi la parce que tubaab bi fexe na ma jàngal la naka ngay dëkkee gaynde maa ngi seetaan bu yàggul ci télé bi am ñuy euh, euh, dressé ay bay ay ay ay gaynde ngeen dem ci àll bi ñëw mu ñor benn yat rek dégg nga jox la ko rek nga omat gaynde nga mën a dëkk ak segg yi yar ko sa biir kër gis naa Kumba Gawlo Seck mu ngi dëkk ak segg waaw parce que benn yarkat moo ko dimbali ba mu dëkk ak moom waaye nit ñi maa ngi gis tubaab yaa ngi jàngale mën nañoo fexe ba yóbbu la ci jaw ji nga dëkk tubaab yaa ñëwoon nan la ñuy dëkkee ci biir géej gi mm-hmm. nañ la ñuy dëkkee ci sedd nan la ñuy dëkkee ci tànn bàyyi may nañ la ñuy dëkkee ñoom mais ba léegi tubaab yi tële nañu woon ñu nan la ñuy dëkkee ñun en tant que doomi aadama waaye mënu ko loolu ki ko mën mooy muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom ci moo la mën a woon naka ngay mën a dëkkeeg sa moromi doomi aadama hmm. waaye ku dul muhammadu rasulullah mënu laa woon naka ngay dëkkeeg sa moromi doomi aadama ndax tubaab yi tële nañ ko xam nga yéeg dégg ngeen li may wax leer moo tax toujours euh, euh, doomi aadama war naa góorgóorlu ci boppam mu xam ne boppam rek la soxla al insaanu yuridu nafsa mhm. te diine liñ koy doyee mooy jubóog sa bopp mhm. sëriñ liñ koy doyee mu delloo ci la sa bopp mhm. moo tax nag wax naa leen ko léegi ne leen fi ñuy jaarale doomu aadama ba mu doon produit fini xam yàlla mënu cee ñàkk impossible moo tax sëriñ bu fi jóg di ommat ay jaam yàlla yi te xamoo yàlla fi ngay mujjeeg ñoom mooy déli yu rey ngay def déli man euh, euh, euh, ñi ñi ñi fi def jëyi ji dégg nga ba bañ ne nañ leen yobbu justice ay nit dee nañ seen loxo man dama leen yeureum parce que dañoo mënut. leer te dañ doon jëm ndaysan ndax lenn rek lañuy tabaxé doomi adama delloo ko ci bopom kese moy ma'rifatu billah. te ma'rifatu billah comme ko newut ci ñoom. non mm. mënuñu ñàkk bañ a def gaaf. Mm-hmm. ci doomi adama yi leen jox dañoo joom wa mënuñ juumuñ de mënuñ dañ doon essayer lañu mm-hmm. ñu ñëw ci El ibrahim yes lañu la ñëw ci Baye bay rek mo meuna ag fa geuna xoot xóot. bidda dégg nga liggéeyal ko ko Cheikh Ibrahim ness rek fimne tay mo meuna moo nit ñi seen bop mhm. ñepp dañuy jëm ñepp dañuy jëm waaw ñepp dañuy jëm motax man awma luma ci ma ciy wax bëggoon ci wax wax ju tang waye tay dafa fan dama bu ngeen ñaanal mo ma bàyyi xulu leen na ma histoire parce que lool rek la bëgg damaa bëgg bàyyi histoire parce que xam naa ne su histoire jeexee ci man rek dégg nga ma def lu ëpp li may def mhm. waaw waaye nag ndeysaan waaw nañ bàyyi bàyyi gis rek buñ ko bu ñu waxee lu jëm ci bàyyi rek incha allah faw ñu yëg seen kaw li may waxaat nag mooy euh, ci ñun ñu taalibe bàyyi ñun taalibe bàyyi maratan uxra taraw na ajaban moomatuñ ko ñi ko moom ñi doon wax naan du kii du lii mhm. léegi nag kii la lii la ñoom ñooy nee nañ du bàyyi du faydu tey léegi bàyyi la fay. jeex na loolu jeex na. ñun li ñu moom mooy wa ubri ñu diini ñu génnaat woon génération bi fan la ñuy teg fan la ñuy teg seen tànk moo tax nag kon man damay oote au service de Baye pour sauver li may wax nag dana métti dina métti trop dana métti waaye mënu ma kaa ñàkk bañ a wax ndax lan muqaddam yi ci boppam. Mm-hmm. jaay ndomba jaay saafara jaay xaatim. jaay nangam taxul woon ñu jox leen ijaasa hmm. dañoo apt ci xaqiqal muhammadiya hmm. ñu yóbbu leen ci camp lëmb pour ñu dégg nga former leen former jaami yàlla yi pour ñu apt ci xaqiqal muhammadiya leer ki doon jéem def camp loolu doon jéem hmm. di jéem a redressé doomu aadama yi ne da leen doon redressé te redressé bàyyi ma lañ koy def xaj yi ak xar yi ak nag yi ak gaynde yi ak segg yi ñoom lañuy ñuy mais nit da koy tarbiya nit tarbiya ruuxaani lañ koy defal pour mu bàyyi yàmba bàyyi sàngara bàyyi lu bon xalaat yu bon gis boppam jot boppam bàyyi ma la ñuy redressé kon maa ngi corriger journalistes yi nga xamante ne uh-huh. ak animateurs yi may dégg ci tele yi ñu ne euh, sëñ Modou Kara uh-huh. noo da doon redressé doomi aadama yi dégg nga waaye nag foo dem dana am lu bon lu baax uh-huh. waaw nangu nañ loolu nangu nañ loolu mais baatu redresser moom bàyyi ma lañ koy def gaynde yi ak ak ak ak bukki yi dégg nga boo bëggee ñu dëgg ak nit ñi nga leen di redresser waaye doomi aadama moom ci tarbiya rek la mën a jaar moo tax tarbiya ci boppam maa ngi leen di wax ne nekkatul ci loxo kenn déedéet ba saalum saalum bi fenkee ci kaw na bi ba léegi eh, eh, eh. la tarbiya jeex ci loxo keneen sëriñ si moo tax il faut ñu jaaxle jeunesse bi kuñ jox seen bopp ku dul El Hadj Ibrahima Niass. Mm. xaritoo fa nekk xaritoo waaye yàllay kese ak jot sa bopp kooku moom yàlla def na ko ci loxo Maulana Cheikh. kese kon euh, li Sénégal xewle nii il faut ñu juum dañoo juum rek man duma leen wax dara dañoo mm. juum. maanaam dañ doon jéem te mënul. Mm. waaw léegi euh, journaliste yi di bëgg a recadrer. situation bi ñoom it dañoo juum redressement nañ ko fi dindi redressé nañ ko dindi waaw yàlla na yàlla defal tawfiq amiin ya rabbi yàlla na yàlla defal tawfiq may woo nag mu xaddam bàyyi ci o service de Baye pour sauver la jeunesse ndax jeunesse bi tey soxla nañ te diine ta ñàkk te diine fépp mu ngi am imam am mursid am faw diine bu taxawee rek imam dafa war a am mursid am kon bu ñu nee sëriñ si waratuñ leen topp daf may jaaxal. ndax religion mooy religaay. li lay relier sa fond ak sa forme. sa fond jub na baax na dégg nga. na yaru na. léegi nga koy liggéeyee mu feeñ ci sa forme. Oh. loolu religion rek ko mën ci moom. Hmm. moo tax baat bi ñu tuddee ko religaare moom hmm. grec la. Hmm. religaare li lay relier. sa fond ak sa forme dégg nga. loolu mooy religion. moo tax diine mënut ñàkk. doomi aadama ci boppam mënta ñàkk ndax Mahatma Gandhi wax na ne nee na képp koo xamante ne mu ngi dund dund bu àndul ak religion da ngay mel ni gaal bu amul gouvernement mu ne gaal bu amul gouvernement day mel ni réew mu amul constitution mhm. kon ngeen gis ne doomi aadama yi jëye yu rëy yi ñu def ci dëkk bi jàppal ne li ñu sóoraalewul religion mhm. dégg nga lu ëpp lu ñu sóoraalewul religion ci seen doxale nag nit ñi moo mhm. tax ñuy def gaaf yu rëy kon nag maa ngi leen di invité ci Maulana Cheikh Ibrahim Niass li ma bëggoon wax gën naa gën a war a mën a leer nii waaye comme que dama dama sonn dégg nga bëggoon naa toog wax lu gën a leer li waaye ñaar rek laa wax lu gën a am solo dégg nga maa ngi leen di wax ne sëriñ bi nga xamante ne moom la ñuy jiiñ la moo rey ñooñu naan dafa doon jéem pour redresser nit ñi mm. waa dëgg la man nangu naa da doon jéem dëgg la waaye redresser boobu ay xaj lañ koy def ak ay golo hmm. ak ay ak ay ay ay ay segg rek la fi ñuy jaarale doomi adam complet ay biddam jox ko l'attraction fait hmm. intérieur hmm. sérénité de l'âme lolu philosophie do leen wax lolu faw nga jaarale ko ci tarbiya deng nga pour mu mën atteindre objectif waaw nit dafa soxla boppam kon nak nañu gor góorgóorlu ci lolu ñaaral bi bi may tëjee mooy mu xaddamu bàyyi ci boppam téréwuma asra terewuma ñu dundee seen asraar yi mm. waaye dafa am lu jàmp mooy mm. alam bi dafa soxla Cheikh Ibrahima allah ñëpp dañuy wax naan ay na barxaam Cheikh Tidiane kon nag ñoom lañ jox autorisation pour ñu mën a jàkkaarloo gaa yi mm. kon nañu feeñ nañu feeñ nañu feeñ nañu lal seen malaan wasifa yi nañu recevoir ndaw yi parce que bàyyi rek a fi des. moom rek a oh. waxoon ne. boo obligé li ji li jëm incha allah. kon muqaddam yi nañu toogaat recevoir ndaw ñi mel ni Cheikh Ibrahima Niass. Hmm. alima xaaliqi bi ak safari ma fi alqaytu kulla hararin Cheikhu Tidiane nañu mel ne Baye Niass bu ñu soxlaal kenn dara ndax Baye na fa inni ah daamun ala kulli mustahab wa waanin an taatin afqara muflisis mel ni Cheikh Ibrahima pour mu ñu atteindre seen objectif dégg nga mooy lan mooy والامه قصدي فيهم اسوقهم باينس موي سيرن بو خامتيني موي دون سيرن بو خامتيني دا فا ديزانتريسي و سي طالب بي بوكو جوخ بوبام تي واخو نافي سما وقتان بلي طالب بي موي نيو سيرن بي موي امام نيو بو نلاكو اندي لي سي جاكاجي لو من لودول سانغوكو سانغوكو ربكو ياكونا كون طالب بي بو نلاكو جوخي جوكو ويرد تربيه كو sëyrul ko rob ko ci bugg yàlla bu boobaa mu jot boppam moo tax doomi aadama yi dañoo soxla seen bopp al insaanu yuridu nafsa nit ki jot boppam la soxla man du ma condamné xale yi jox sëriñ boobu seen bopp seen yaakaar a tas rek du ma ne yaay booy ak papa yi nga xamante ne jël nañ seen doom jox sëriñ boobu seen yaakaar a tas rek ndax nit bu mënut ci boppam dara day xool moromu nitam. ndeysaan mu dem ci ko boppam leer kon yaakaar lañ amoon mu tas. maa ngi leen di wax ne Cheikh Ibrahima Niass du tas yàlla. yes. asalaamaaleykum wa rahmatulah.